haa wala duniyaati haa wala duniyaati shukran shukran shukran shukran Allahu nuru la ilaha illa Allah Allahu nuru la ilaha illa Allah lay jafe na kan mooy Seydi Mamel Cheikh man de xaw ma ko mais man naa nang wax li ma dund ak moom ak li ma jëfanteeg moom ak li ma seqanteeg moom en 2006 maa ko déglu dégg ko jog sol sama daal seete ko mu dalal ma dalal boo xam ni sama yaakaar yëpp fa la ci moom mu yëg ma lool muy sëriñ boo xam ni bu boowul sëriñ ku koy seenu ci kaala grand bu doo ko gis waaye jàngaleem boo ko dégloo déglu waxtaanam soo génnee te yàlla dong tax ngay wax daane ah kii de am na lu ko yàlla dénk koo xam ne lu muy waxtaanee Mawlaana Cheikh Ahmed Tidiane Chérif mag ñu tedd ñi mag ñu baax ñi mag ñu yeewu ñi ci biir ci biir réew mi réew mi ku fi waxtaanee say Cheikh Umar Fuuti radiyallahu taala waxtaanee Seydi Hadj Malick waxtaanee sëñ Babacar Sy Seexul Islaam Maam Ibrahima Ñas ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen sëñ Abbas ñoom ak ñeneen ak ñeneen. waaye te moom waxtaanewul boppam tuddul ay waajuram tuddul ay maamam hmm? bàkkuwul di jàlle jàllale message boo xam ni ku toog da nga ni lii de mosuma ko dégg te suñu classe yi ku toog daal lii mosuma ko dégg njàngat bu wér la njàngat bu wér boo lekkaak pédagogie bu leer ba ku mu waxal nga dégg boole ak nag simplicité ak yëg yëgam moo ko may lii xam xàmmee doomu aadama yëg doomu aadama fonk doomu aadama moo ko may tey jii popularité bii donte nag xam-xam nga ko tungoom mais nag cofeel gi nit am na xam-xam te kenn kenn topp ko ah moom nag macha allah ñoo ngi koy sant bu baax a baax di ñaan yàlla suñu borom aussi it fu mu jëm. fu mu jëm yàlla wan ko loo xam ne raw la sax njortam raw aussi suñu njort waaw suñu yaakaar daal wér na ci moom doy nañu tey doy nañu suba waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbokki eh, wala dunyaati TV yëpp di leen ziyaara di rafetlu seen liggéey bu baax macha allah ci taxawaay bi ñu am ci ànd ak Mawlaaye Cheikh Seydi El Hadji Mouhamadou El Cheikh si fépp fu muy jëm ngir laayee biir nit ñi rek ngir ñu xam kan mooy Seydi Mouhamed El Cheikh ngir ñu mën cee jëriñu ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan yal na ko ñëpp dégge noonu rek incha allah. Ah, macha allah Imaam xam naa ñu bëggoon la laaj rek benn question bu jëm ci wàllu confédération waalo bi ndax gis nañ dafa mel daayira yu regroupé wu la euh, aussi gis nañ seen pas-pas seen taxawaay ñu bëggoon xam rek boo ñuy présenté confédération daayira waalo boobu lan la maanaam. tabarakallahu fédération daayiratu imaan bu waalo sang bi euh, biñ ko xalaatee sang bi daf ko rafetlu ndax dañuy bëggoon falal sang bi ay charge am ndax sang bi mbaaxam ak yaatoo dem na ci daayira bu ne buggoon na dem seeti la léegi nag ñun ñu xam ne temps dafay xat ñu ne nañ dajaloo def benn fédération bu waalo fédération bi nag mu nga ëmb Rosso Sénégal nga xam ne mooy mooy première daayira bi nga xam ne moo initié boot daayira yëpp am na daayira bi bàyyi ko ñiic am na daayira cekkeen am na daayira ndimb euh, am na daayira góolam am na daayira mbundoom am na daayiratu imaan bu Ross Béthio mu nga maanaam ay sept daayiratu iman daal ñoo dajaloo ñoo tabax fédération daayira ñu wax daayiratu iman bu waalo ak ak Richard Toll ak Richard Toll fa tabarakallahu euh, loolu moo waral fédération bi léegi nag bu ko defee dafay yombalal sang bi su jógee pour dem ci fédération bi rek daayira yëpp dañ dañuy daal di daje maanaam mel na ni ñëwal na ñëpp ndax loolu dafay woyata soo amee sa kilifa te charge am bari te nga da koy jéem a way waye falal ay charge am te xam ni moom li muy dox ak li muy wax lépp seen njëriñ kese la te ñun xam nañu ko bu baax ndax mooy suñu faatix lima uxliqa di suñu xaatimi lima sabaqa di suñu naasiril xaq bil xaq di suñu haadi ila siratika al mustaqim waaw moom sang bu tedd mawlaay saydi Mouhamed al Cheikh fa tabarakallah waaw ah, macha allah kon al xalifa ñu ngi leen di delluwaat ziar bu baax leen remercier macha allah di jégalu aussi ci dérangement bi macha allah ak waaw ah, macha allah comme ni nga ko gisee Mawlaay Sidi Mohamed Mawlaay Sidi Mohamed El Cheikh sang bu tedd bi egsi na ah, comme ni nga ko gisee sang bu tedd bi na eh, convoi baa ngi nii di ñëw xam naa incha allah rek ñu eh, ñu bàyyi leen rek seetaan macha allah teertu bi fii ci Rosso Sénégal eh, ba ci kanam macha allah. seen ruux di taxawu mindeef yi di leen teg ci yoonu leer almahadi firil jullit yi seen ruux di taxawu mindeef yi di leen teg ci yoonu leer ah sang bi di njiitu awliya dëggulee

leer gi sa diggu xam-xam yee sa teen di labal dun bi sa mission universelle sa géeju leer gi sa diggu xam-xam yee sa teen yi nga balal di labal dun bi sa mission universelle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 daanaka jege nañ buntu zawiya bi moo nekk sunu ndeyjoor na le ah macha allah zawiya bu roso sang bu tedd bi Mawlaay Seydi Mame Cheikh ñëw yéeg ci kaw gis ngeen bo uh, bu extraordinaire bi nga xamante ni mobilisation am na ko fi macha allah vraiment muy accueil bu extraordinaire boo xamante ni vivre nañ ko tey fii ci Rosso uh, comme d'habitude uh, sang bu tedd bi ñëw aussi yëkkati fi drapeau drapeau macha allah Palestine mu nekk lu symbolique lu symbolique macha allah ci événement bi s nekk lu symbolique. xam naa ñàkkul euh, nañ ko topp nañ ko topp macha allah kon ñu leen jox dig daje rek incha allah ba ci kanam euh, ak événement bi macha allah wasifa bi ak euh, macha allah conférence bi kon asalaamaaleykum ba ci kanam. الله أكبر الله তারা bi firil jullit seen ruux di taxawu mindeef yi di leen teg ci yoonu leer almahadi firil jullit seen ruux di taxawu mindeef yi di leen teg ci yoonu leer a sang bi di njiitu awli di di njiitu awliyaa yi di miinal ruuxi xaybu di leen yar ci dëggu ni eh, taalibi bi la topp jàngal ko xaqiqa tariqa tijaniya lan la waaw jàngal ko ko Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif moom la njëkk jàngale gis nga Cheikh bi mu demee ba dernier fan yu mujj ci dundam dafa wax Seydi Ahmed Chérif moom ngay dégg ñu koy tuddee Mouhamadul Kabir mu ni leen na ngeen dellu ayni ma di su ngeen ma dencee ba noppi waaw maanaam euh, lu jar bàyyi xel la doomam lay wax de doomu doomu deretam lay wax waaw boo xam ne bu doon réew mi moom la ñuy puusal fa tey ni ko yaay xalifa bi kaay toog bu doon réew mi moom la ñuy puusal ni ko kaay yaay xalifa bi kaay toog Cheikh Tijani laa wax doomi deretam la ni dellul ay numaad yi su ngeen ma dencee ba pare boobu fan lañ ko doon denc ca Maroc ca Fès ay numaad fa mu nekk Algérie kon réew ya sax bokkuñu bi nu jaaxlee ni ko lu tax mu ni bu ngeen fi toogee nu nome leen xalifa te mu ni sama xalifa li may xat xatmee yonent bi moo tax dama ko waxtaan ak moom ba mu garanti ko moom doo nga koy nome moom yonent cheikh wax loolu ni moom dong moo koy nag moom yonent bi waaw moo tax bu ma déggee nu naan diw du xalifa cheikh lu tax diw di xalifa cheikh ma ni yéen xanaa cheikh leen ko wax waaw waaw booy dem bay dingat xalifa cheikh yi da ngay bàyyi ba cheikh toog li ma lay xalifaam waaw parce que moom la du keneen nag waaw ku ci ne dafa am lu mu la compal ni la demal liggéey ñëpp dañu présenté wu ci moom ñëpp dañu présenté wu ci moom en tant que rox ku ci ne Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani compal la ni la demal liggéey waaw Cheikh El mu compal ko jox ka la mu ko jox mu dem tasaare tariqa bi fi nga ko dégg tey yëpp waaw Cheikh El Hadji bi nga xam Sénégal nga dégg jàkka yi naasiril xaq bil xaq di riir suba di riir ngoon xoolalam ca liggéey sëriñ Babacar mu jox ko ba boo nee tarixa tijaane sa xel dem ci sëriñ Babacar si Baye Niass mu jox ko ba anglais yi nga xam ne dégguñu wolof lan ma lan di wëgg fi waaw cheikh ku nekk jox na la te joxoon na ñeneen ñoom Aliou Harajim joxoon na ñoom Aliou Tamasini joxoon na ñoom Mouhamadul Khali ku ci ne mu jox la sa branche ni liggéeyal gis nga noonu mu doon séddalee branche di joxe noonu la ma joxe branche ci axiru zaman ni ma leer na ba deux xat-xat lu xëju fa ndax liggéey la bu ñu war a réussir te moom waxoon na moom Cheikh bi gaa ñi naan yi xew yépp dana dem ba fay ba jeex Cheikh ni sama poste bokk ci ndax du ma jëli mukk ci yonent bi luy fay waaw waaw wala duniyaati wala duniyaati shukran شكرا شكرا